mu ngoog euh, su ko defee rek ñu dem seeti beneen ndaje bi nga xamante ne nii International Institute for Democracy and Electoral Assistance ñoom ñoo ko daal di oote ndaje bi nag moo nekk ndaje bu njëkk bi nga xamante ne nii am nañ ko ñu gis ne foofa njiit yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk foofa ca ECOWAS and Intergovernmental Authorities on Development ñoom ñëpp tasee nañ ci ndaje boobu mu am ay mbir yu am solo yi nga xamante ne waxtaanee nañ ko fa nag mu aju ci wàllu constitution yi nga xamante ne moom lañ am fii ci biir lii di Africa bokk na tamit li nga xamante ne moom lañ tuppee ci constitutional transition fii ci biir li di Africa Amar Tunkara International Institute for Democracy and Electoral Assistance ab mbootaay la boo xam ne dañuy jokk pour defaraat li jëm ci wàllu réew yi nag ni ñuy doxee te mu war a méngoo ak seen i satta yi ak démocratie nee nañ nag kuréel googu fu mu toll nii ñu ngi liggéey pour defaraat seen lëkkaloo boo xam ne moom moo dox seen diggante ak ECOWAS ba na ci loolu jàpp na ne lu am solo la ndax seen i moom mooy pour tere yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngee am ci réew yi le mooy yenn ci ay coppite yi nguur yi nga xam ne nag mu ngi am yoo xam ne méngawut ak yoon lu aju ci wàllu coup d'état ak ci mandat yi nga xam ne nag président yi nekkuñ di ko respecté ca ba muy ibbi bi la ndaje permanent secretary mi jiite diplomatic service bi nekk ci ministry of foreign affairs moom nag wax na mbébét yi nga xam ne nag am nañ ko ak am solo bi nga xamee ne ndaje bi lee nag am na ko solo eh, ci réew mi regional director international idea africa mooy mbootaay bi nag ki leen toogal fii la ca tund africa ak west asia moom kii di rob saramo wax na nag njëriñ bi nga xam nag moom moo nekk si ndaje bi waaye tamit wax na ci li jëm ci wàllu transition bi nga xam ne nag war nañ koy dooleel mu a jox cër bi nga xam ne a jox cër li mu ne ñaax jigéen yi ak ndaw yi pour ñoom itamit nag ñu fexe wane seen taxawaay ci wàllu doxalinu politique bi seen réew yi ñu ne nag boo xoolee depuis atu 1990 ba tey Afrika nag boo xoolee yoon bi nga xam ne nag jël nañ ko pour delluwaat seen réew yi ci yoonu démocratie ak constitutionnalisme maanaam daal réew yi nga xam ne dafay nañ amoon nañ ci ndam nag gis nañ ne fan yi am na jafe-jafe yi nga xam ne am na si li ko waral nag mooy transition yi nga xam ne nag mu ngi am ci yenn ci ay réew ndax am na yenn ci ay njiit réew yi nga xam ne ñoom nag bañ nañ pour respecter li nga xam ne nag moom mooy seen luwaay yi moom mooy pour nangu seen wattu bu jeexee pour ñu joxe lenge yi ndax am na réew yu bari nga xam ne fu mu toll nii nangu ñoo respecter li nga xam ne nag moom mooy lii di ah, mandat yooya fii la ca tund li di gis nañ ne am na jafe-jafe yi nga am nañ ko ci wàllu coup d'état yi nga xam ne nag mu ngi am na ñu bari ñoom nag ñu ngi euh, pour ñu fexe ñu dajaloo bu ko defee nag ñu daal di waxtaan a jeexal euh, jafe-jafe yi nga ñu ngi koy daj ba tax na kuréel bi jàpp ne ne ci gëstu yi nga xam ko nee nañ daal buñ ci bëggee am ndam nee nañu foog ñu am waxtaan yi nga xam ne dañ koy seq waxtaan yooyu foog ñu daal di see wax ci li jëm ci wàllu jaar-jaar nga xam ne am nañ ko euh, bu ko defee nag ñu mën a jeexal yéena si jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi ko am si constitutional transitions mooy jafe-jafe yi nga xam ne nag am nañ ko ci wàllu luwaay yi nga xam ne nag moom lañ war a saxal ci yile réew ndax luwaay yi pour mu daal di dox foog ñu wax seen i jaar-jaar yi waaye tamit mu am ay borom xam-xam yi nga leen di boole ci yile waxtaan yi nga xam ñu koy jot Omar Tunkara Star TV News